nit nit lu damaa bëgg ñu nite li ma wax baatu Omar yi mooy nit nit lu am na ko gën li ko gën mooy nite fii dara dara ñoroog fi bañ koy màcc li fi xew daal xamuma ko pour wax ci turu téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi dëkk li ma xam mooy man li ma li may dund ak li ma fi dañ ñu fi woo tey gannaaw boo xamee ne suñu session unique ordinaire bi tey la war a jeex te dañu aadawoo dañu tàmm ci bés bu mujj bi ci lañ daan waxtaanee débat d'orientation budgétaire nguur gi gouvernement bi pouvoir exécutif bi ne moom lii la bëgg a liggéeyee lii la bëgg a awalee Sénégal député yi fi toogal askan wi addu ci ne su dul suñu sago nangam nangam ñi def ci ñetti weer yoo xam ne dañuy dem ak yeneen jotaay ñetti weer yu mujj ñu indil ñu projet de budget ñu def loi de finance kon tey assemblée ci liggéeyam nekk bi ñu xëyee nag diggante bi li fi fi wax ak yi fi nit ñi pexe te loola lépp ma de tënk ko ci mbiri nit nit lu yu waroog ñiti moo waral bureau bi def daje bu bureau bi dañ comme léegi ñi dañuy jëm def conférence de président président de commission yëpp ñëw toog ak bureau bi suñu paree ci nag la ñuy ñëw nag ci plénière kon assemblée bi ngi ci liggéeyam ñu ne ci assemblée bi ngi ci seen liggéey waaye li tax man nangoo wax ak yéen mooy damaa yàgg a jonjoog ay mag bokk ci parti bi sos Sénégal yóbbu ko indépendance tabax démocratie état de droit su ma ëppul su ma bokkul sax ci ñu am xam-xam ndem yàlla may na ma xel ak mën a takk takk naa ba am na loo xam ne bu xewee danaa mën a wax ne waxum ma def li ñuy wax magum waxoon naa li ma bëgg li ma itteel mooy ñi ànd ak nguur gu bees gi waaye yéew yeneen député yi ci àndul ak ñi nekk ci benn bokkeekaat nga xam ñoo ëpp lim ñun ñëpp nañ fàttaliku ne Sénégal lañu ëpp jëtt bi moo ñu jëkk te moo ñuy mujj ñu fexe ba xam ne diisoo laante biir